grand combat baa ngi noonu ñagas gis nga ma nga daf ci déeba déebam nekk ci ay gàllaajam plastique la sol bu weex ndeysaan plastique la jël takk ci morso bu xonq di wër ak moom ci diggi géew bi caatu waaloo ngi noonu Ousseyn Diop mi may wax mu ngi nii Ousseyn borom Wassare Lamb Ousseyn doomu Père Aziz Diop bi xale bi nga xamante ne macha allah ma nga nekk Wassare Lamb waaye ma ngay liggéey maa ngi lay nuyu fay naa la bàyyi jiini ci loo nekk. sant yàlla bu baax a baax. tey nga ñëw ci làmb ji mais daa mel da ngaa tardé de. waaw damaa tardé maa ngi doog a yegg si nag damaa tardé. Ah. waaw. daa oo baabu. <laughs> ah baabu bàyyi ko foofu rek. <laughs> ndeysaan noo gisee tey làmb ji diggante ñagas ak caatu waalo. waaw boo xoolee ñagas caatu waalo boo xoolee ñagas. xaw nañ koo gëj a gis tuuti mais boo xoolee caatu waalo moo ngi nekk ci dernier dernier bain moom ñagas concentré wu na mais tey dafa mel ni moom tamit ndam dong moo ko war ndax boo xoolee waa ba gëj nañ leen a gis mais moom tey ndam dong moo ko wax moom ñagas. mais boo xoolee ñagas bi muy doog a déclenché wu ci làmb Ousseyn bi mu ñëwee da daan wan a xeex wan a bëre dem ba ci digg bi gisatuñu ñagas boobu lal la ci lan la ci moom. waaw booy xool ñagas bi muy doog a ñëw mbëri daal man dama jàpp ne ku ci doog a dugg si da ngay def affaire sérieux di entraîner di def li nga xamante ne ni moom la mbër bu ndaw di def mais boo dee bañ commencé laa dégg succès bi topp la da ngay commencé mel ni kuy wàññi ndax xoolee moog pakala la woon. mu ñëw ma moo la jël pois boo xam ne teg ko fenn stade Iba Mar Diop ñu xeex xeex bu métti pakala doo ko mu daanu depuis boobu ba léegi dañoo gis ñagas dafa xaw taxaw kenn xamul lan la ñëpp moom la ñuy laaj te tey dafa waa wane ne ñagas bañ xamoon ak ñagas bañ daan gis dañ ko war a gis tey tey dafa waa wane mun mën a bokkaat ci làmb ndax boo xoolee fii mu nekk nii du place am du place ci làmb moom ñagas. caatuwaalo dem naa ci entraîneur am mu ne ma lépp lu mu am entraînement moo ko gënal booy bi moo fay njëkk. moo fay mujj am na jom nangu naa xeex moom it lan nga koy wax. mooy li ma doon wax ci ñagas rek moom Caatu Waalo suñ bëggee nekk mbër lépp lu leen di def mbër lu nekk dañ koy def mais buñ demee ba nekk mbër lépp lu lu nekk ñoo koy def fi mu toll nii bëgg na nekk mbër bëgg na bokk ci ñi ñuy lim la mu mu nekk mbër yëpp moo koy def moom tamit ñu gis ko mu nekk ci dynamique boo xamante ni dynamique bu baax la mais tey dafa war a prouver ci kanamu ñagas pour mu prouver nag il faut mu teg sañ-sañ ndax ñagas képp ku ko xam ku nekk xam ne bakkanam da koy teg day xeex ñagas il faut mu dëggal boppam ndax booy xool booy xool moom moom moom caatu waalo ñagas moo xaw a su tuuti bu mu xeex nag il faut mu visilant ndax ñagas ku ko xam ku ne xam ne day xeex day dóor tey nag dafa woone boppam combat déclenchement la ci moom caatu waalo. ñagas lan mooy avantage am ci komba bi. mu taxaw déglu ko xam ne caatu waalo waaw taxaw déglu ko te xam ne caatu waalo mii ma gis nii bu abi siflee day ñëw na taxaw déglu ko visé ko fu mu ko dóor fu nekk buntu feeñ ndax ñagas mi boo koy xool néewul doole. waaw Caatu Waalo lan mooy avantage am. Caatu Waalo mu rapproché ko jege ko. jege ko na ko jege. fuut ñaxa sikite loxo mu daw waroonu ko. lii mooy avantage Caatu Waalo. nee na ma xam naa ne bu arbitre ne prime sama tànk la jëm. waaw daa mel ni loolu nga conseillé sax. non non la sax. ñaxa sa woo wàcc tànkam Caatu Waalo tam da ko war a rapproché fu ñaxa tegee tànkam mu teg tànk wut ko fu mu déclenché mu daw juwaat la moom lii mooy làmb ji. ndaysaan ku xef nag doo gis jël bi. dégg ngeen Ousseyn na gis jël wasaare lamb gi noonu ñu ngi fii tey waaye ñu ngi leen di dégtal lamb ji nga xamante ne moo am fële ca Fatick sëñ Basirou nga fa borom mbég meeg taar mi. diggante Tapha la ak ak Lac de wax nga dëgg kii Ikri Waalo la ne. kii Ikri Bawol. Tapha Tine Lac de Guiers 2. ba la ñuy jooy. revanche boobu. njar ndéem la. ay du yombu. da koo naxoon stade Demba Diop. ay combat boobu du yombu. ko tey. Tapha Tine pare naa pour bëre moom. ndeysaan nee na pare na pour bëre ak Lac de Guiers 2. Wassare Lamb la ko waxee. ndeysaan. kaw ñaar ñëpp ku ci nekk dañ lay teg. ah lamb la. lamb gi noonu. waaw waaw. ñoo ngi noonu di présenté. ñu ngi Adama. Ñagas. moo la woon ginnaaw ngemboo ngembu Lagos caatu waalo moom ngeen jàkkaar lool Ouzin arbitre bi sifflé na. waaw bàyyi ji lii xale yaa ngi noonu ci digg géew bi ñagas booy xool moo ñu woon ginnaaw caatu waalo moom lañ jàkkaar lool arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ arbitre baa ngi laaj ay juge am bàyyi ji li arbitre bi sifflé na bàyyi ji lii. arbitre bi sifflé na samedi février 2020 arène Idaly Gningue Gningue production moo ñu fi woo il est vingt heures treize diggante ñagas ak caatu waalo ñagas moo la woon ginnaaw ngemboo ngembu Lagos di caatu waalo nga jàkkaar lool ñoo ngay leewaatoo ñoom ñaar Ousseyn ñoo ngay waa Baye Djili ñoo ngay demee wet ku nekk euh, maanaam day liir combat bi làmb jaa ngi noonu ñoo ngi leewaatoo ñagas moo ñu woon ginnaaw. caatu waalo la jaakaar lool. avantage du ñagas mooy mu xeex waaye sooy xeex pite ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñagas sàmmal say tànk caatu waalo lu mu yàgg yàgg sa tànk bi la jëm caatu waalo da ngay woo ñagas ci xeex ba mu fàtte boppam nga mën koo daan yaakaar naa ni loolooy làmb ji de. loolooy làmb ji bàyyi i ndax booy xool moom moom caatu waalo avantage bi mu am mooy xeex ak ñagas daw sàcc ko mais est-ce que ñoom ñaa xaw ñoo neexoo doole. xaw na ñoo tolloo doole ñoom ñaar booy xool ñoom ñaar booy xool Baye Djily xaw na ñoo doole waaye làmb ji ci xeex lay tàmbalee waaye ci bëre lay jeexee. ragal naa ne ci bëre ay jeexee dox ci diggante ñagas ak caatu waalo ña ngay lewaatoo di demee wet jëm ci saako yi. waaye Baye Djily ñagas bu fekkee ñagas ba ma xamoon la moo nekk nii doomu daanu mën na cee am de. ñagas daa wexoon. waay ce que wex nga ca moom newoon na ci moom ndax daa gëj a bëre nag. xeex a ko gënoon kaay lekk laa wax moom ñagas. xeex samp jaaga. xeex a ko gënal kaay lekk ba mbër kenn moom. hey ñagas. kenn du ñagas laa la wax. daa mën bis de. waaye ñu bàyyi dañoo ëmpale caatu waalo. dafa mel ni. mbër kaamil la. la ma daloon la ma daloon ci diggante Jackson ak Pape Ndoye. séntu naa ko ci combat bi. surprise bu rëy mën na am ci làmb ji. làmb jooju ñëpp dañoo ñëw kenn xamul Jackson. mu ñëw wane loo xamante ni nii waaye Pape Thiatou Walo mii ma gis kenn du moom dégg naa ñu ne ñaari mbër bu ñu ba di leen naaka ba leen naataag la rek la. dëgg la ñaari mbër bu ñu demee ba méngale leen ne ñaari mbër yi war nañoo mën a bëre rek làmb la waaye Thiatou Walo ak ñagas ña ngay leewaatoo ñagas nag wàcc na ci tànk yi di lewaat ak moom di dox lant lentement ci kaw caatu waalo. daa mel ni koy wax. cokkaas na. ñagas daa dégg. moom cokkaas na moom ñagas wàcc na ci tànk yi ba toll. xeex la bëgg. te làmb ji bëgg bëgg a xeex xeex. bañ xeex xeex dañuy xeex ñoom ñaar Adama. waaye est lii muy def nii en enrangé na ko ndax booy xool moom ñagas moo xaw a su tuut caatu waalo sëgg bi su yàggee du ko enrangé moom ñagas. dañ koo njëkkee rek waaye duñ ko mujjee. ku ci nekk day liir sa morom xool lan la indi def round d'observation ñoom ñaar dox ci diggante ñagas ak caatu waalo hey waaye caatu waalo kenn du moom foo nekk ñu ne ci keppaaru Lac de Guiers 2 foo nekk ñu ne ci keppaaru Alioune Seye foo nekk ñu ne yaa ngi ikiri waalo rek doy na ndam waaye yaa ngi bëre koo xamante ne xale bu garaaw la muy ñagas ñagas waxuma la ñagas mu tafaatin waxuma la ñagas bu bawal waaye ñagas mañ xamoon stade Jom Iba Mar Diop lam fa defoon ci làmb rëy na arbitre bi àtt na bëre woo leen kaay leen wuy si kaay leen wuy si est lii nag bokk na ci li defar làmb waa boo xoolee na grand ah, combat la woo ñu ko saasaaxe ndax boo xoolee ñagas am na fu mu teg bëtam te caatu waalo mi daa bëgg a bokk ci ñuy tudd kon combat bi dafa mel ni il faut ñu lire ko tuuti léewtoo def la round d'observation doo ko tappalantoo dañuy bëre buñ ko yàqamti de dañuy bëre dañuy xeex ñoom ñaar ñagas caatu la grand ngi noonu la ngay cadré culo ñaxas caatu waalo ñaxas cokkaas na sànni na léegi góos ñoom ñaar seen combat ñaatu waalo jël na tànk ba lu ma la waxoon doxoy daan daan na ko daan na ko la ñaxas doon daw am na dañ ko ëppale ñaxas doon daw am na ay dañ ko daan na dafa daw jël tànk wundeeloog moom xam nga ban combat bi la ma jox Zoss nii la ko daane woon. Zoss Papa Sow dafa na daw ci tànk rotation. laataa muy xalaat bu def ak moom ko mu toog. laay gis nañ combat bi. nee naa la daf ko ëppalee. ñagas ñagas découragé na nee naa la da ko ëppalee. fekk na ki muy bëreel. ñagas xamul ki muy bëreel moom ñagas. Eh, bàyyi naa caatu waalo tey. bàyyi naa lamb. caatu waalo. jàpp bu baax la ko jàpp. benn song def. benn action la ko def. ci action boobu la def ak moom rotation pivot ak moom daan ñagas jël bu amul benn werante ñagas làmba ngi daan daan muy neex tey caatu waalo wonati na boppam beneen xale jog na xoolal ma mbooloo mi ndeysaan làmba ngi noonu Adama oh caatu waalo ñagas fan nga ko teg. waaw mais xale bi dafa pare. nelal mooy njëkk saal mooy mujj saal secret sportif mooy entraîné mbër du ay galaaj. mais booy boo xam dafa pare ku ci entraîné wul dem nga ñibbi ñi entraîné ñooy dante galaaj wax naa ku ci am combat joxal sa yaay ak sa papa pay mënoo fekk sa yaay am problème seen nga jox sëriñ bi 20 000 du yoon man képp koy àndal nee la boo entraîné boo ñëwee fi may fii ñu galaaj ñu entraîné ñooy daan ku ci entraîné liggéey boo ñëwee fi mu fay caatuwaala fu mu jëm bu ma jox avance mu yóbbaale ko xam. Madji Madji dañuy xaaral dimanche incha allah Madji Madji. Caatu Waalo kaay Caatu Waalo kaay. Caat Caatee kaay. Caat nga ñëw këram léegi léegi Seck woo ko yëpp ma waa ko jox. Caatu Waalo. tey bëre bi nga bëree ak ñagas ñëpp séntu woon ko ci xeex nga taxaw déglu ko. lu waral taxaw déglu bi arbitre na prime nga daw def ko deux temps jàpp tànk bi pivoté ko ànd ak moom daan. ngaa ko nag. seega ponkal la ponkal boo jëyee tànk bi naan da koy dëj bu beesee poids bi bu la beesee poids rek doo tànk bi de rëcc da nga naan ko coppa def rotation fekk si ko si aksam def manuel day tëdd par force man damay bëri làmb simple kuy bëri ay ñoom caaxa fay. di bëre gaay di daan ay ñoom si njëriñ kayit si àll bi di teew ñoom si naa Malika xam nga kii làmb rek waaye nag maa ngi sama combat yàlla mënu ma koon ñàkk day metti rek bu ma doon dee sama yaay laa ko doon bëreel. wax nga ma ko avant ngeen di bëri lu ma la wax kër ga baraag la courant ñëwagul ndox ñëwagul sama yaay daa mën a ba sonn bu doon loolu rek damay am naa liggéey beru naa waaye sama yaay tax may may sacrifice ci làmb billaay maa ngi sant nag maître Dialy Kane bu baax xaalis bu bari la ma jox ak andaw bu baax a baax ak dan àndaw jàpp na si bu baax sama coach nag aw ma fayam Abuka Dio Sam Gindaa Mamor Babu Lamine Babu Euh, sam jàpp nañ ci bu baax sama coach nag ginnaaw bu sama yaay jàllee sama kos laa may victoire bu ndax moo bëri loolu. def nga lu garaaw loo xamante ni mbër jafe na mu di ko def. fi ma jëm ginnaaw man ndaw laa maa ngi doog a door man aw ma taamu ku ndax ku fi ñëpp bàyyi laa jël ñagas boo ma koy jël ne moo la mën man léegi man lu mu gën a diis moo ma gën a waaw ñoo ma ëpp maas nag waaye ku ma si jàppanteel di nga xam ne bokkul kenn ëpp la maas état de forme bi nga indi tay naa la ñëpp waaw mbokk yi loolu moo xewoon ci diggante ñagas ak caatu waalo caatu waalo bëree na combat bi bëre boo xamante ni da ngay leer ne siñ la bëree mais teg na ko ci yoon teg ko ci axe arbitre prip mu déglu ñagas xaar lan la indi ñagas waxoon na ma ko ci début bi aadama ne woon na ma bu arbitre le sama tànk la jëm kee nee na ko taxawal ñu samp jaaga xeex man ak yow Ouzin noo gisee làmb ji. bàyyi ji li ma gisee làmb ji mooy ñagas dafa xamul ki muy bëreel. ndax ñagas boo xamoon kuy bëre day wàcc ba tolloog moom bu wàccee ba tolloog moom di ko jam di dox teg tànk jam ko dox teg tànk mais boo xoolee dafa daw sànn rek caatu waala jaw juwaarloog moom dafa ne coppe tànk bi daw def rotation dëj ko mu toog may ko samu xalaat fi mu koy jàppee fi mu koy daanee benn la bàyyi ji li làmb ji nii la mënoon demee lii mooy làmb ji tey bàyyi ji li noonu la ñagas daane ki nga xamante ne mooy caatu waalo adama jëlal li ma sañ sa boo xoolee lii nag ma sol tubay bi Mbaye Kébé ma ko jox sama grand bi nga xamante ne macha allah Kébé ñu ko Alek Mbaye Birane Socé ma ca Singindaat Seydou Dior waaye lii borom États-Unis moo ma ko borom États-Unis nag su ma ko waxee du ma tudd turam jaajëf kontaan nañ bu baax a baax a baax di la jaajëf te nga bañ a wax tur bi te nga bàyyi ma wax tur wax tur bi ko wax ah, kon ñu koy ñu bu baax a baax a baax di ko jaajëfalaat encore une fois gis nañ entente bi nga xamante ni wasaare làmb am nañ ko dooley jën ndox doolay waykat public waaye doolay wasaare làmb ñi ci ginnaaw la te du leen gis man ak duñ ci dara ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb. ah jëf doom nday